sama premier sélection dama ci am contentement bu mag ça fait vraiment plaisir kontaan nañ trop pour rejoindre Gaynde yi voilà. man moom dama ñëw fii pour avec beaucoup ñëw ma pour concurrence quoi dama ñëw juste pour donner à fond pour jàppale Gaynde yi loolu rek moom fi indi waay. football moom da ngay ñaan yàlla match boo joué rek nga gagné ko ñu ngi préparé wu nu mu waree et dañuy continuer di préparé wu incha allah dinañ gagné match boobu. parce que équipe nationale lañ wax ko équipe nationale euh, niveau bu bu bu supérieur nga fiy fekk à chaque fois donc euh, voilà on a on a su gérer leen rek moo fi ni pour gën a apporter jàppale équipe bi ci kaw muy ci suuf te incha allah dinañ liggéey nu mu waree pour niveau yi fu ñu koy fu ko fu ñu ko fekk rek ñu gën ko yëgal incha allah. depuis ñoom bi ñuy réclamer dama war a ñëw contentement laa ci am te motivation la daf ma jàppale pour ma gën a continuer liggéey bi. pour mën a ñëw rejoindre équipe nationale voilà.